asalaamaaleykum dal leen ak jàmm jàkkaarloo ci diggante gouvernement ak taskatu xibaar yi démb ak it yóbbu bi ñu yóbbu ci kaso bi député bii di Cheikh Abdou Mbacké mooy lii teel ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool dañu koy door ak ëttu yéenekaay bu groupe su Communication du Sud Quotidien muy waxtaane nag yorin wi ci wàllu koom-koom ak wàllu tolluwaay askan wi ci atum 2022 bu gouvernement bi nguur gi dellu si na ci jéego yi nga xam ne moom la ca jot amal suñu naataangoo yi di ñu fàttali ne ci bés yu ñu weesu nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu farine bi dañ doon xamle ne nguur gi daal da leen war a fay koppar bi nga xam ne moom la leen ameel ministre bi ñu dénk wàllu finance ak budget di Abdoulaye Daouda jàlloo di xamle ne fi léegi fukki fan ci weeru juillet bi ñu jëm nag koppar gi nga xam ne moom lañ leen yoreel danañu ko fay Abdoulaye Daouda jàlloo yëkkati yooyu li kàddu démb ci ajuma ji keneen ku teewe woon it bi leen dajee di ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi ci suñu réew di Mamadou Talla di xam le ne yokk bi ñu yokk indemnité jàngalekat yi nag ginnaaw déggoo bi nga xam ne moom la gouvernement bi siife ak jàngalekat yi ci weeru février bi ñu génn daal loo xam ne guléet la rawatina ci CEDEAO Mamadou Talla ne lii yëpp daal di ko tax a jóg mooy fexe ba njàng meng jàngale mi yemb ci suñu réew ndax soxal na lool gouvernement bi leneen lu soxal gouvernement bi it moo jëm ci wàllu nawet bi ak it liggéey bi jëmale ci wàllu BRT bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo bi faree ci gi Bourguiba ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale teg ci yore kàddu gouvernement bi di Oumar Gueye dàqul benn yoon ne mun nañ ci am ay jafe waaye nag mi ngi dalal xel yi mi nga xam ne ne gouvernement bi jaarale ko ci ministère bi ñu dénk wàllu ndox meeg assainissement bi mi ngi def kéem kàttanam daal ngir jafe-jafe yi nga xam ne mun na cee juddu mu bañ a sonnal lool askan wi naataangoom bi yore wàllu xëy mi ak formation professionnelle di Dame Diop moom nag dellu si na bu baax a baax ci jéego yi nga xam ne moom la ministère am bi amal ngir taxawu ndaw yi bi yokk nañ ko ñetti yoon ndax dafa jóge ci ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards jàll ci juróom-ñetti fukki milliards ak juróom-benn centre yi nga xam ne fa la xale yi di tàggatoo it yokk na bu baax a baax gi des ak ndaje boobu diggante gouvernement beeg taskatu xibaar yi ak le quotidien muy xam le ne daal nguur gi koppar yu baree bëri la ci def ministre bi ñu dénk wàllu finance Abdoulaye Daouda jàlloo xam ne ne xel xalaatul benn yoon ñu takkal subvention bi jëmale ci wàllu courant bi danañ ci dugal liy tolloog juróomi téeméeri milliards yu teg yokkuteeg jëmale ci wàllu carburant bi ak it ci wàllu salaire bi loolu yëpp daal laas dëkk méngaleeg jéego yi nga xam ne mbuur gi moom la def jaarale ko ci ay millions yu takkoo takku Abdoulaye Daouda Diallo nag profité na ci bileen ndaje ngir daal dàq kàddu yi nga xam ne ñenn ñi dañ koy yëkkati ne ñi nga xam ne moom la nguur gi di liggéeyal rawatina FMI daal dañuy ñëw saa su ne daal di wax nguur gi fi mu war a jaar rawatina ci politique am jéemale ci jàppale askan wi Abdoulaye Daouda Diallo xam le ne daal dara amu ca nguur gi dana wéyal dimbal bi nga xam ne moom lay dimbale njël yi bu ñu sukkandikoo ci soleil cash transfert di koppar bi nga xam ne moom la ñuy yónnee askan wi dinañu ko yokk bu baax a baax ndax beneen yoon luy tolloog benn million ci ay njël daal ñooy jot yooyu le koppar xontu jëmale ci wàllu njur bi it nguur gi dana leen ci jàppale bu baax a baax ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi nag gouvernement bi profité na ci ngir dellu si teg loxo yi ñu teg loxo ñenn ci ñi nga xam ne daal dañu leen tuddee ay wéy fippu Umar Gueye di ko firndeel ci biir laas dalal xel nag yoon dina ci def liggéeyam na mu waree mu yit dànkaafu waaye Yewwi Askan Wi kedd ko bokk ci coalition boobu di Ousmane Sonko xam le ne daal dañu doon bëgg a faat bakkanam mu xamal ko les échos écurie yi nga xam ne moo nekk ci ñeenti pën pëna otom dañu ko dévisé woon Ousmane Sonko di xam le ne nag xeex bi ñu nekk di xeex te mu door ci juróom-ñetti fan ci weeru juin bi ñu nekk nag dañu koy wëyal bu ko jaree sax nag place de la nation danañu ko soppi def ko place Tahrir ñu des rek manifester boobu nga xam ne waaye Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon amal ci juróom-ñetti fan ak kàddu yi nga xam ne moom la fa Cheikh Abdou Mbacke yëkkati woon mu jural ko ñu yóbbu ko ci kaso bi bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien loolu yëpp nag mi ngi bawoo ci ministre bi ñu dénk wàllu yoon di maître Malick Sall mu xamle ko jaarale ko ci ab communiqué ngir kàddu yi nga xam ne tegginiwul dara yi mu teg ci ndoddu njiitu réew mi Cheikh Abdou Bara Dolly nag mi ngi ci kaso bi bu ñu sukkandikoo ci Les Échos dañ ko tëj ràpp ci kaso rëbës bi ngir mu noppi bu ñu sukkandikoo ko ci le quotidien ci jamono joo xam ne nag waa Yewwi ak waa Wallu ñoom nee nañu nañu ko teggi loxo ni mu gën a gaawee Ousmane Sonko nag di xamal les échos ne kàddu yi nga xam ne moom la Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké yëkkati daal andu ci benn yoon ci jamono jooju nag njiitu réew mi ci France ba li nga xam ne fa la ne mi ngi xam le daal ñoom dañoo fas yéene gagné élection tabu député yi ñu jëm mi ngi ko xamle ni mu doon dajeek ñi nga xam ne ñoo teewal waa APR foofu la ci France seen sàkkuteef mooy daal fukki député ak ñett yi nga xam ne moom la diaspora bi moom daal ñu aakimoo ko 24 heures nag di xamle ne njiitu réew mii ak fit la wone ci nim doon yëkkati ay kàddu ci ndajeg l'Afrique ak OCDE mu ne daal Union africaine ci boppam dafa war a am place si g bi libération di ñu waxtaane mbirub Essi Akoli di doomu Togo bi nga xam ne nag benn taximaan moo faat bakkanam ci rue de Thionk doomu ndem si yàlla si gën a takkal nag taximaan bi lee di Camille John ñu waxtaane wàllu tàggat yaram door ko ak wàllu enquête li leen soxal nag mooy koppar yi nga xam ne moom la ñuy dugal ci gaynde yi bu leen di jëlee ci benn club yóbbu leen ci beneen ak it seen i salaire équipe Sénégal muy équipe bi nga xam ne moo gën a cher bu ñu sukkandikoo ci transfert market ñu des ak équipe nationale bi jëmale ci mondial atum deux mille vingt deux ak it ñàkk tàggatu bi nga xam ne fës na lool mu jaaxal loolu nag ki leen di tàggat di Aliou Cissé ñu des. ak gaynde yi ba tey ak waa record bi waxtaane Pape Matar Sarr ak Pape Gueye ndaw yi nga xam ne nag dañuy diiranteeg mbagg ñoo xam ne daal am nañu solo lool ci équipe nationale bi sat ak yi di ñu waxtaanee ñaar fukk ak juróom-benneelu journée bu Ligue 1 sénégalaise bii tëj saison bi Casa moom li mu waroon def def na ko ba noppi laaj bi kay mooy ci diggante jaraaf ak génération foot kan mooy jël ñaareelu place bi. ñu jeexale ko ak waa sunu lomb bi jox kàddu gi sox mu tontu franc muy xamal franc ni du mbër goo xam ne daal dañu koy daan ci fukk ak juróomi saa lii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Le face-à-face -face entre le gouvernement et la presse est l'affaire du député Cheikh Abdoumbake Tels sont les sujets qui intéressent la presse du jour. Gouvernance économique et sociale 2022, l'État liste ses tops. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Ces derniers jours, les meuniers ont fait des sorties, dont les médias, pour réclamer le versement de la prime de compensation que l'État tardait à payer. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daoud Diallo, a annoncé que l'État s'engage à payer la totalité de cette somme au plus tard, le 10 juillet prochain. Abdoulaye Daoud Diallo s'exprimait hier jeudi 10 juin lors de la conférence de presse du gouvernement. Prenant le ministre de nationale a marque la hausse des indemnités des enseignants suite à l'accord conclu en février dernier avec les syndicats d'enseignants et inédite. C'est une première dans la CEDEAO. Selon Mamadou Talla, cet acte entre dans le cadre de l'apaisement du système éducatif qui est une des priorités du gouvernement. Autre priorité, c'est l'hivernage et les travaux du PRT. D'après le confrère de l'avenue Bourguiba, le ministre des collectivités territoriales, du désenclavement du territoire et porte-parole du gouvernement Omar Gueye n'exclut pas des difficultés mais rassure. Selon lui, le gouvernement et particulièrement le ministère de l'eau et de l'assainissement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atténuer ces désagréments CRT, son collègue de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion Dame Diop est revenu largement sur les efforts consentis par son département pour une amélioration de la qualification des jeunes. Le budget a été multiplié au moins par trois. On est passé de 27 à 86 milliards de francs CFA et de 87 à 131 centres et aujourd'hui, plus de 138 000 jeunes sont dans les dispositifs de formation, selon le ministre de la formation professionnelle. terminons avec cette rencontre avec le quotidien qui renseigne que l'État est plein d'énergie. D'après le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, on ne peut cesser les subventions sur l'énergie. Il annonce une subvention de plus de 509 milliards de francs CFA du secteur énergétique. Cette hausse des prix du carburant et l'augmentation des salaires, l'AS les assimile aux efforts consentis à coups de milliards du gouvernement. Abdoulaye Daouda Diallo a profité de l'occasion pour battre en brèche l'idée reçue selon laquelle les partenaires internationaux, notamment le FMI, mettent la pression sur le Sénégal par rapport à sa politique sociale de subvention des prix. Le FMI ne peut pas nous faire des injonctions par rapport à notre politique économique, a-t-il martelé. L'État maintient également le soutien aux ménages, indique le Soleil, qui informe que le prochain cash transfert va viser plus d'un million de ménages. L'aliment de bétail sera également subventionné selon le soleil. Lors de ce face-à-face -face avec la presse, le gouvernement s'est expliqué sur l'arrestation de présumés rebelles à Dakar. confirme donc l'AS et rassure. La justice fera son travail par rapport à cette situation. Il met en garde Yewwi Askan Wi. L'un des leaders de cette coalition, Ousmane Sonko en l'occurrence, dit avoir été victime d'une tentative d'assassinat, rapporte Les Échos. Ils ont saboté les roues de ma voiture en dévissant les écrous des quatre pneus, ce qui pousse le confrère à se demander si la vie du leader de Pastef est en danger. Ousmane Sonko martèle la lutte que nous avons commencée le 8 juin dernier va continuer s'il faut transformer la place la nation en une place Tahrir Nous le ferons. Restons avec cette manifestation avec les propos jugés diffamatoires du député Cheikh Abdoumbake envoyé en prison. D'après Sud Quotidien, l'ordre des poursuites du parlementaire est venu de Maître Malik sal le ministre de la Justice qui, à travers un communiqué, dit avoir instruit le ministère public pour offense au chef de l'État et discours contraire aux bonnes mœurs. Cheikh Abdou Bara Dolly est en prison, selon les échos. Il est réduit au silence à Rebeuss, selon le quotidien, alors que Yewwi et Wallu exigent sa libération immédiate et que Ousmane Sonko désapprouve ses propos dans les échos au moment où le chef de l'État Macky Sall depuis la France réaffirme, je cite, Nous allons gagner à Il l'a fait savoir en présentation de la délégation des Sénégalais de l'extérieur de pr France. L'objectif est clair s'est remporté 13 postes de député. 24 heures relève le plaidoyer courageux pour l'Afrique du président de l'Union africaine, le président Macky Sall. Il demande un siège à l'Union africaine au G20. Selon le président Macky Sall, on doit être là quand on prend des décisions. L'affaire de la ressortissante togolaise tuée par un taximan à la rue de Tchong, c'est ce qui intéresse Libération de ce matin. Ici à Koli, une scie Christophe, témoin des faits, sa fille évoque une tentative de kidnapping et accable le taximan Camille John. Le meurtrier présumé parle d'une altercation à l'intérieur du taxi et assure que la victime serait tombée toute seule sur la chaussée. Sport à présent tout d'abord avec l'enquête qui s'intéresse au prix des transferts et salaires des Lions. Ces Lions qui pèsent 211,9 milliards de francs CFA. L'équipe du Sénégal a l'effectif le plus cher de l'Afrique, selon les chiffres de transfert market. Mané, Ghana et Koulibaly forment le trio de tête des plus gros salaires, avec 15,5 milliards de francs CFA par an. Restons avec l'équipe nationale, notamment le mondial 2022. Précisément, le manque de préparation avec les inquiétudes d'Aliou Cissé qui s'est confié à Stade le quotidien du sport. Ça s'annonce déjà compliqué pour le Sénégal. Restons avec l'équipe nationale, avec Record, qui nous parle de Pam Matarsar et Pape Gueye, ces jeunes qui pressent les cadres. Record, tout comme SAD, s'intéresse également à la Ligue 1 sénégalaise, notamment la 26e et dernière journée. Casa est Génération Foot pour la deuxième place. Terminons par Sunulombe qui donne la parole à Sor qui apporte la réplique à Front. Je ne suis pas un lutteur qu'on terrasse en 15 secondes. Sunulombe rappelle que pour le combat entre Sor et le Front du 19 juin prochain, ce dimanche aura lieu le dernier face-to-face. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.